li euh, ba tey amu ci benn réponse boo xam ne mën nañ ko euh, mën nañ jënd li nga xam ne moom mooy blocus bi foofu noonu. en tout cas demain incha allah on peut s'attendre en tout euh, boo xamante ni si ni en tout cas bu fekkente ni recul amul ci ñaari côté yëpp parce que ñii teera nañu ñii nee nañu dañuy danañu dem de toute façon. Mhm. boo xoolee am ñenn ñoo xam ne ñiy joxante rendez-vous sax. ak naan nañu daje cité kër góor geeg ñu ni mel pour dem lever ji la bolo ci ça veut dire que euh, tey même ñi nga xam ni ñi ngi dëkk foofu cité kër góor gi sax ñi ngi rëccee seen suuful parce que exactement xamuñu ëllëg ci dimanche gi ci dibeer gi incha allah lan moo fa nar a xew mm-hmm. euh, ci bolokis bi nga xam ni mi ngi am foofu noonu la ci ko Ousmane Sonko parce que li ko waral mooy. ñenn ci ay militants ak i euh, sympathisants ñoom nee nañu wala njort nañu ni bis bu ñu demee julli ji en tout cas ci seen i dëkk ki dëkkaat. bàyyi fi Ousmane Sonko euh, lu ne mën na fexe wala mën na ni ko coppet yóbbu ko fa xam duñ ko gis wala ainsi de suite ainsi de suite. Mhm. ñooñu tey bu ñu desidee ni du ñu dem tabaski ji di bàyyi Ousmane Sonko ci condition yi nii état du Sénégal décidé ni ñoom itam du ñu. teg euh, li nga xam ni moom la ñu teg ba pare keneen ñëw fële di ko dindi ça veut dire que loolu tey bu fekkente ni en tout cas. Mhm. te nit ñi dafa mel ni dañ ko jël o léger li nga xam ni en tout cas moom la ñu moom la nit ñi bëgg a defal suba parce que mhm. Yewwi Askan Wi bu fekkente ni ñoom dañoo taxaw dëggal seen bopp. Mhm. Euh, mobiliser xale yi xale yi génn. Euh, état itam taxaw dëggal boppam foofu ku ne xam ne lu ne lu ne mën na fa xew ah, parce que état nag euh, vraiment dafa amee ay prérogatives yoo xamante ni si nii bon Euh, bien vrai que euh, ku ne xam na ni barricade bi euh, c'est c'est c'est c'est c'est illégal en tout bu ñu sukkandikoo ci ay juristes yu bare ba yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu googu noonu yi la mhm. mais tey bu ñu taxawee ni même si c'est illégal si c'est si c'est ñoom danañu ko def te ñoom jàpp nañu ni c'est légal quand même parce que mhm. ñoom ni ñu ko layele mhm. ñoom jortu nañu ni c'est c'est légal boobu les bloquistes ñee ñoom jàpp ni se illégal te amul ñenn ñoo xam ni en tout cas jéem nañu jóg def ci ay jéego wala ñu wax ci pour jéem a xool lu ñu apaiser mbir mi ça veut que dimanche la boo xamante ni si on peut s'attendre en tout dimanche la boo xamante ni si itam. Mhm. moom njiitu réew président mac Sall daf ci war a wax c'est-à-dire dimanche la boo xam ni pour le moment. Mhm. Euh, Mm, yàlla na voilà c'est c'est ça en fait maanaam il faut ngay jeex moo yi nga war a wax parce que mm-hmm. bu booroo utiliser moo yoo xam ni itam dafay dépasser de trop mm-hmm. c'est parce que fi réew mi toll la en tout cas de toute façon euh, moo tax moo tax moo tax euh, moo mm-hmm. tax moom Ousmane Sonko li ñu yàgg wax rek wax dëgg yàlla boolu gis ba ñun euh, dañu gëm ni euh, dañu ko dañu ko jaay doole rek dañu ko ëpp doole jaay ko doole bëggoon koo téye tey am nañu occasion mm-hmm. ñu daal di ko fay jaar téye ko euh, pour man dañu ko waroon a bàyyi koo xam ne du délinquant sàccul xaalisu askanu Sénégal corruption de la jeunes ci mbiru Sweet Beauté bi nga xam ni Sénégalais yëpp dem nañu ba xam ne ay farce la ay tàppale la ci caaxaan mhm. tey dans norme normes ñi nekkoon ci ginnaaw loolu yëpp ñu waroon leen a xool naka nañuy def ak ñoom mhm. mais ñu def def ci liñ ciy def ba indi Sénégal ci situation yi ni jàpp naa ka ni loolu waroon a mën a ñàkk la en tout cas de toute façon moo tax ni ki ëllëg euh, ñi nga xam ni war nañu wax war nañu wax mhm. mm, pour que euh, Sénégalais yi mën a am jàmm euh, mën a seen xel mën a dal su ko defee ñëpp dem tabaski ci jàmm ak salaam parce que tey mhm. Ousmane Sonko boobu dafa am per papa la papa la père de famille la mag la mhm. nijaay la mhm. euh, jarbaat la lépp la kon kooku yaakaar naa ka ni ñooñu euh, ay famille am euh, mënuñu toog di tabaski tabaski goo xam ni xëy na dañuy jàpp ni moom dañu ko dañu ko jaay doole te dañu xam aussi ci yenn condition la tabaske moo tax mhm. ma ni dimanche la boo xamante ni si nii euh, nit ñi war nañu ko bàyyi xel baax a baax ñi ci war a jóg ñu wax ci bu ko defee ñu xool naka la ñuy trouver solution ba mhm. jàmm mën a dellu si ci réew mi Ousmane Sonko ñu dindi barricade bi ci fee ñuy def bee ñuy def këram mhm. bàyyi ko mu libre parce que nag yoon da ko ko may mën a dem di doxi ay soxlaam comme tout monde bu fekkee ma gëm mooy bu fekkee dañ dañ ko tëj nañ ko coppee dugal ci kaso bu ñu ko doxee soxlaam lii mooy dëgg en tout cas doy na waar nga daal di wax lu am solo ñu gis ne Ndaya Euh, moom Ousmane Sonko ba tey mi ngi foofu noonu ca cité góor gi amul accès benn yoon ci biti ndax euh, gis nañ ne que ba mu jugee Kaffrine ba tey dañu daal di barricade foofu noonu ca biir këram avocat ma aussi euh, boobu ba léegi démarche yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ba ci maître Ciré Clédor Ly bindoon na sax ab lettre daal di koy jagleel ministre de l'intérieur di Antoine Diome mais ba tey amu ci benn réponse non ñoom moom li mën lépp def nañ ko muy wax ngir ñu lever li nga xam moom mooy blocus bi parce que mhm. nag quoi qu'on puisse dire blocus bi ngi fay bëgg yàgg ndax dañ ko condamné léegi nit koo condamné moom pour la première fois comme ni ñu koy waxee à chaque fois rek ñu gis nit kuñ condamné mhm. euh, boobu ba léegi mu ngi nekk biir këram te ñu xam fan la nekk nit kuñ jugé en contumace sax lay wax nga xam fi mu nekk nga jugé ko loolu ñu ne déeta waay mhm. euh, nit nga kon condamné ko nga xam fi mu nekk jëliwoo ko mhm. loolu tamit c'est la première fois mhm. euh, ci histoire du Sénégal ñu koy gis ba pare barricade këram moom mënul dem mënul ñëw euh, ba pare doomam tam bu demee jàngi ñu koy palpe ñu koy fuyate mu nekk mbir moo xam ne doy na war on dirait que ne parfois da ngay sax demander est-ce que Ousmane Sonko mi ñoom sénégalais lañ ko jàppee te pourtant euh, il en sénégalais léegi nag bu ñëwee loolu yëpp ñu koy teg avocat am yi def ci seen def ci liggéey bu mucc ayib def ci lépp loo xam ne rek mën nañ ko mhm. ba sax loolu waral euh, waaye Yewwi Askan Wi tamit pare euh, le vingt cinq comme ni ko Kébé waxee euh, mhm. dimanche la boo xam ne dimanche bu bu bu nar a metti mhm. parce que dimanche boo xam ne président Macky bu sukkandikoo ci Walf président Macky Sall ci la war a àddu jëmee ci la nga xam moo jukkee ca boobu la dialogue bien sûr dimanche boobu tamit ñoom lañ pare pour lever li nga xam mooy blocus parce que jàpp nañu Ousmane Sonko mhm. waru tabaski ci euh, maanaam ci barricade yi barricade mhm. yi waru faa nekk mhm. jour tabaski mu nekk dimanche boo xam ne euh, Fatima dina xaw a compliqué lool lool lool euh, dina xaw a metti itamit ci sénégalais rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk foofu noonu ci cité kër góor gi kon daal lañ ca mën a wax mooy que nañ dindi li nga xam mooy barricade yi boo demee ba nit ki condamné nga ko fatiment mun mënoo ko jàpp wala yow yaa ngi xaar lan ngay xaar parce que dans les normes 15 yi mën na bu yàgg war nañ ko mën a bu dee dañ koy jàpp jàpp ko bu dee jàpp ñu ko ñu bàyyi ko mu dem doxi ay soxlam dindi li nga xam ne moom mooy barricade yi barricade bi ah, ah. dogguma la li ci garaaw mooy amul nekkul benn décision boo xam ne dafa moo tax hmm. euh, ña nga xam ne ñoo ànd ak moom ñu pare suba pour dindi boobu dee barricade xam nga lii nii euh, du c'est la première fois hmm. mais xanaa kay bii dafa gën a yàgg dafa pur bii dafa gën a yàgg bien sûr mais nekkul pour nekkul c'est la première fois ñuy barricade Ousmane Sonko Ousmane Sonko yàgg na leen demander hmm. euh, kan moo leen wax maanaam kan kan moo joxe bii leen ndogal mhm. mais amul lenn loo xam ne moom mooy certifié que ne mhm. euh, maanaam yoon moo bind loolu mhm. mais ñun dañ naan Antoine Félix Ndiome parce que moom moo yor euh, kuréel gi nga xam ne force de l'ordre yi la moom bu leen waxee ne dindi leen tey barricade yi mën naa ne tey tey tey yi mën na faa mën na mën na faa jóge kon moom moo taxit euh, ki nga xam ne moom mooy maître Ciré Clédor Ly ba muy bind lettre am Antoine la ko bind parce que xam na ne moom mooy ministre l'intérieur moom moo yor wàllu force force de police nationale mhm. euh, a a a a ñaan solennellement aussi mhm. euh, comme que léegi loolu moo xew mhm. ci njëkk nga leen koy ñaan ñu mayee la ko ñu dindi li nga xam ne moom mooy barricade yi parce que ñun itamit soxlaatuñ amaat leneen parce que manifestation bi euh, préfet interdire na ko ñii bu ñu forcé wee pour def ko ku ne xam ne lu ne mën dafaa xew te loolu noonu ñun ñaanuñu ko ñi ngi jooy suñu ay doom noppeeguñ bëgguñu leneen tamit di fekkaat wala da ci dolleekuwaat te ñaanuñu ko yàlla suñu borom Mhm. kon Sénégal dëkku jàmm la nañ dindi li nga xam ne moom mooy barricade bu ñu def buntu kër Ousmane Sonko mhm. bàyyi ko mu libre mhm. suñ koy jàpp ñu jàpp ko suñ koy bàyyi ko mais nañ ci def benn chose nga nit ki jàppoo ko bàyyi woo ko loolu mooy waxi lan ba koo tëj ci biir këram këram nekkul prison ay njabootam ñi ngi fa ay njabootam si nga merci ñu demee ba dañ leen féete sa sa ay soxna mënuñoo génn mhm. ñeneen ak ñeneen mënuñ maanaam mu nekk mbir situation boo xam ne mhm. compliqué na mhm. te Ousmane ko ak ay njabootam ñu ngi koy dund léegi nag ñi nga xam ñoom ñoo war a wax ci réew mi nañu wax nañ ne président Macky Sall wala keneen ak keneen bu dee da koy jàpp nga jàpp ko bu dee jàppoo ko nga bàyyi ko nga dindi nga xam moom mooy barricade yi mhm. mais quant à xale yi li nga xam ni ñu ko bëgg a def lépp rek nañ ko def ci pacifiquement mhm. je crois que Fatima c'est mieux euh, bien sûr ni nga ko waxee rawatina ñu dëgmal feet muy tabaski te ku ne xam na ne euh, nit ki fan yële ñu génn ñu nekkoon ci ay tension yu mettee métti yoo xam ne mën nañ ne ñu ci ëpp ci Sénégalais yi seen ay euh, activité dañu taxawoon ndax defe naa ne jàmm moom ci la lépp xaj bu jàmm amul defe naa ne kenn du mën a dem def nga xam ne moom mooy sa ay activité ni gis nañ ne que euh, léegi moom Ousmane Sonko mu ngi foofu noonu ci cité góor gi ñu daal di koy euh, barricade dañu gis ne que sax c'est pas la première fois mais bii moom euh, dafa gën a yàgg ndax ba mu jógee fi nga xam ne moom mooy Kaffrine ba tey doon amal foofu noonu caravane de la liberté ba tey mënatul am accès ci biti ñu bari aussi mënuñu da am accès ci moom ñu gis ne que avocat mi aussi rawatina ki nga xam ne moom mooy maître Ciré Clédor Ly boobu ba léegi mi ngi def te mu nekk loo xam ne jugewul euh, nekkul ndogal boo xam ne jóge na ci yoon ñu daal di koy dindi mais gis nañ ne que amul euh, benn retour ñu gis ne que ni ki suba aussi marché bi nga xam ne ñoom euh, ñi faree ci kujje ki bëgg nañ ko amal pour ñu dindi li nga xam ne moom mooy blocus bi ñuy ñaan rek jàmm mën am fii ci biir réew mi ndax defe naa ne jàmm rek lañ ci soxla rawatina ci fitna yi nga xam ne jóge xam naa ne Fatima ak discours bi président Macky Sall war a tenir ah, ak li nga xam ne moom moo la waa Yewwi Askan Wi woote mm. Euh, nekk na daal dimanche boo xam ne xam naa ne économie bi rek moo nar a taxawaat de malheureusement ndax parce que xam naa ne euh, tabaski bi ñu jëm euh, jaaykatu xar yi nekk ci biti kenn du risquer sa vie wala kenn du risquer li nga xam moom mooy sa marchandise mhm. di ko bàyyi noonu ci loo xam ne yow xamoo parce que suba euh, kenn xamul peut-être mën na déclarer candidature mën na ko bañ a déclarer suba yi tamit waaye yeewi askan wi mën nañ def seen li nga mhm. xam ne moom mooy seen mhm. manifestation comme mën nañ ko ñàkk bañ a def mais lu ci mënti am mooy que jamono ji ñu bëri ci ci tànge la ñu daal ci ci ci neen sax du tooj parce xam nañ ne suba lu nekk mën na xew te ñun jàmm rek la ñuy ñaan jàmm la Sénégal soxla effectivement ak rawatina événement bi nga xam ne mm-hmm. euh, ci la ñu ci la ñu jëm espérons bien euh, que ne euh, balaa loolu yëpp peut-être nañu am benn alternative boo xam ne mm-hmm. dina mën a baare yëpp ba lépp mën a jàll ci jàmm ak defe naa ne askan wi sax ñu commencé di subir wala am na ay inconvénients yoo xam ne am na ci ndax gis nañ naxaar doon tuuroo fii nii biir Dakar mais gis nañ ne que cette fois-ci nekkul loo xam ne bari na parce que ñu ci bari amuñu confiance wala wóoluwuñu indi fi li nga xam ne moom mooy seen ay xar ndax gis nañ euh, manifestation yi nga xam ne am nañ ko ci mais dañuy euh, ñaan rek ki nga xam ne moom mooy président ni que Sénégal moom jamono ji jàmm la ñu bëgg sa njaboot euh, boo leen jiitee demal xool rek li nga xam ne moom moo gën a oyof ci ñoom wala xool li nga xam ne moom moo gën ci ñoom nga daal di koy def mais kanta indi fi leneen wala xëy na ñi nga xam ne ñoo fare ci kujje ki dem amal